nuyu di leen jaar yéen ñi suivre Rmo Sport ñu wara a ñëwen ci benn vidéo wax ci Sadio Mané bi nga xam ma nga nek fële ci bayani minik xam ngeen Sadio Mané dafa demoon ben short yi fële nga xam moy mooy 2 tv mu nek première fois muy dogo wax ci problème bi nga xam ne amoon na si moom ak Leroy Sané Sadio Mané nekk développé na lu bare bare bëri mais mu nek ay cadeau yo xam cadeau yu exceptionnel la cadeau yu am solo la dañ ñëw ci kàddu yooyu gën koo faram-fàccee mais laataa loolu de dañuy wax yéen yi ganti page bi le ngeen abonné te ngeen bës ko notification bi pour ngeen am suñu ay vidéo au taaral fii ci Romo Sport sama gars yi Sadio maane mi ngi doon xamle ne problème ak Leroy Sané problème la boo xam ne euh, problème bu ndaw la woon rek muy genre problème yooyu nag mën na koo régler neneen comme ni mu ko réglé wul ndax mo ne genre problème nga la ko day bax mais ñu ne mën na ko réglé nee comme ni mu ko réglé mooy dugg ci vestiaire yi di doré di jaxase fi max bi mu ne loolu nekkul li gën mais mo ne li ci am solo rek ben affaire la bu fi jaaroon jall mu ragal nañ ko ben yoon mu jeex ñom ñëpp ñi ngi nek en chambre mom chaajo muy xam ne lépp sol échange yi ñu concentré wu ci club bi bu baax baax club bi mëna wëy li def ay exploit bo mëna jël. bu Bundesliga bi ñu jëm ak Ligue des champions bi jëm ak lépp luy tafe boo xam ne Bayern Munich teew na fa di ko xeex quel esprit yi Sadio Mané mental bu baax la boo xam ne waa Bayern Munich kàddu Sadio Mané yi da leen gën a motiver ñu gën a góorgóorlu xam ne leen xaar ca saison bi bari na lool. kon liggéey bi nag moom Sadio commencé na ko ci wax ak jëf ndax démb ku déglu kàddoom yom wax ca 2S da nga xam ne xale bii di Sadio day pare na. pour xeex pour fight pour jàppale ñi nga xam ne ñooy waa Bayern Munich bañ mën a def saison boo xam ne saison bu parfait lay ne saison bu kenn xaarul saison boo xam ne da leen mën a indil ay résultats ak ay réussite yu bëree bëree bëri gaynde ñi ngi lay ñaan réussite ak jàmm ak xéewal yi ñuy suivre Mon Sport abonné leen ngeen commenté ngeen partager ngeen xaar ñu ci yeneen vidéo ak yeneen numéro ak yeneen jàngal merci beaucoup